ab euh, lettre adressé ko ko ba Ousmane Sonko génnoon sa démenti li ni mel mhm. que ne moom bokkul ca signataires yi ñu gis ne nag ndikital leen président Macky Sall di recevoir bu 18 heures jotee mhm. mais mu nekk audience boo xam ne euh, bëri na daal ay euh, question yoo xam ne bëri na ay interrogation yoo xam ne am na ci biir waaw xam nga dañoo toog fii waxtaan ci dialogue national ci coowal diw dafa war a dem ak warut jëm ma ne la dialogue ba la ca doy waar mooy euh, on président on benn njiit boo xamante ne nii moom waxtaan li ko ci li ko ci yóbbu mooy bëgg-bëggam. Mhm. waxtaan lu mu neex neex neex ak lu mu yaatu yaatu yaatu. ak ku fa mën a teew moom bëgg-bëggam lay indaale ci waxtaan bi te boo jógee ci waxtaan ba la mu bëgg moom loolu lay génnaale ci waxtaan bi. xam nga loolu du waxtaan. Mhm. cest dañuy discuter man ak yow on parle d'une chose balaa ñoo wax li ma fas yéene xam naa ko suñu waxtaanee ba fu ñuy mujjee man li ma bëgg man loolu laay def. et tout le temps si même situation boobu la ñuy nekk ak le président de la république euh. parce que euh, processus bi lu nekk woo nañ ko ci woo nañ ko ci changer sa ministre de l'intérieur lu tax wootewut na ñëw leen tey à 18 euh. est-ce que bañ ko waxee ne ko changer le ministre de l'intérieur nga teg fi di wax na loolu mais gannaaw lettre ba nga xam ne def nañ ko man ci benn logique laa nekk mooy président bu demee ba woo leen ne leen kaay leen ñu waxtaan am bu nekk ci boppam ca loolu la bëgg a def te bu ngeen yéegee ba moom ba pare loolu mu bëgg def lay def bu paree ne yéen ñi ñëwoon waxtaan si yéen a ko sàkku woon parce que tey euh, ñëpp xam nañ ne élection yu ñu jëm euh, li ni ñu daan jekkoo élection benn bokk yaakaar jekkoo élection yi y a des gens jusqu'ici qui <laughs> pensent que lépp lu ñu mën a def ci stratégie pour fexe ba élection bañ a am dinañ ko def waa léegi kooku nag nga xam ne yow leer na la ne kii ba ngeen dem élection sax du egg ci xolam mm-hmm. est-ce que di ko mooy opportunité wu dem ak moom di toog di waxtaan ci possibilité wu report d'élection parce que pour man danger bi foofu la nekk on n'a pas de problème à ce que ñu dem ci président de la république wax ak moom surtout que on est contexte boo xamante nii président de la république yëf yi dafa romb ay loxoom nekkatul ci ay loxoom maanaam def ak dindi dafa romb président la république. pourtant Ousmane Sonko wax na ko ne nekkatul ay prérogatives ak moom ay pexeem la mën a teg mais bu ko tegee ci yoon moom président la république amatul par exemple le cas de Bassirou Diomaye Faye et tant te pour man loolu laajut ay dem palais toog ak yeneen ak yeneen parce que tey pour man situation yu gën a laaj toog waxtaan jaar na fi te waxtaan amut. donc man damay réitéré waat taxawaay boobu wala wax jooju noonu mooy. Euh, euh, opposition bi yaakaaruma ne man mën naa leen gën a xam. président Macky Sall moom moo leen proposé ndax yaa ngi gis si euh, ñi ñu koy. Eh, may noonu bisu Macky Sall propose au collectif. des recalés du parrainage une audience pour ce mercredi 24 janvier 2024 à 18h. moo laa lay voilà kon moom moo. président Macky Sall proposé bien vrai nag euh, envoyé nañ ko ab ab ab moo wax la benn affaire <laughs> président Macky Sall ah, su amul soxla si yow. yuuxul dëkk bi yëpp demal buntu palais dañ lay génne foofu doo fa dugg. Mhm. bis bu moom bis bis bu mu yëgee ne moom soxla a waxtaan bis boobu la lay woo bis boobu la lay recevoir. maanaam su nekkee en position. de faiblesse dialogue national réew mi dañuy toll ci situation boo xam ne ñëpp dañuy yuuxandoo euh, société civile beeg ñëpp yuuxandoo nañu dialogue nañu waxtaan nañu waxtaan. président du la faale il faut que moom mu dem ba toog ba sentir ne moom dialogue bu mu teg bu nekk xoolal ni mu demee commencement ba fin li mu bëgg moom li mu nasoon moom. loolu lay woo nit ñi ñu waxtaan ci li mu bëgg ñu def li mu bëgg après ngeen delluwaat ci li ngeen demoon c'est ça le problème. Mm-hmm. te moment xelu nit ñi dafa tey léegi nag c'est simple posture bi c'est pas c'est pas compliqué mooy yéen ay opposant ngeen ci ay élection présidentielle lu ñu jëm. Euh. na askan wi toog croiser les bras di leen observer ñu xool bu ngoonee kan mooy dem ci président ak lan lañ fay waxtaanee. Cheikh Bamba Dièye moom day dem ak gaajo d'après euh, bu ñu sukkandikoo. ci euh, ci les échos. déjà bu sukkandikoo ci les échos. il faut xam nga xam nga am na loo xamante ne nii maanaam ñun dañoo dégg waxtaan rek. Mhm. ñu bëri ci ñun suñu xel dem ci report d'élection. voilà parce que ñun ñëpp ñu ngi wax que ni risque de report euh, euh, électoral euh, def point d'interrogation parce que ñu bëri ñu ngi jox ci li président dafa amul prérogative sax di pousse élection actuellement maanaam dafa jeex moom c'est-à-dire lu jëm lu jë lu jugee lu jugee ci durée maanaam bii ñu jëm nii ci élection yi jëm jëm weer yi ca topp wala at ya ca topp président amul lu mu cee dogal maanaam fi mu ne moom ay mandat ay fan a ko ci dese daf koy mottale la jëm maanaam benn fan bu tegu ci kaw mandat amul lu mu ci mën a décider li mais processus électoral bi tàmbali nañ ko ba mu àgg fi mu egg rapport la mais dafa am leen loo xam ne man dafa xaw a ci man. Mhm. mooy que euh, recalé yi nii à la fin nga naan nii lan lañ bëggoo a fet parce que conseil constitutionnel. mi nga xam ne bokkuma si bokkuma si bokkuma si élection yi naa fexe ba xajamal ko. voilà parce que on bi nga xam ne wala bëgg-bëgg bi nga xam ne doon nañ ko wax que ne moom lañ bëggal Sénégal Sénégal avant Sénégal naat euh, ay ressources ñu daal di koy yor euh, régime bi nga xam ne moom mooy teg askan wi lu metti ñu mu daal di dem maanaam. genre discours yooyu lañ doon dégg ci ñoom. bu ñu demee ba tey à la dernière minute euh, ñu taxaw temb ne dañuy dem waxtaane prison Macky Sall pour seen bokk ci élection. Mhm. alors que euh, conseil constitutionnel jël na li nga xam ne mooy décision à la fin da nga naan mais ñii nii euh, réellement la lañ bëgg. waaw xam nga ñoom man damaa jàpp ne. man mhm. c'est-à-dire du ma leen reprocher dara ci ñoom ñu bëgg a bokk ci élection présidentielle. mais le problème qui se pose à boo demee ba sa bokk ci élection boobu noonu. Mhm. Euh, am lu mu causé ci lu mel ni report d'élection nga nekk en face ak ay adversaires yoo xamante ne nii ci seen doxalin je prends l'exemple bi fi xew la temps yi passé ci recours boo xam ne dugaloon nañ ko ci mbirum Sénat. Mhm. opposition bi donte recours bi ñor na leen donte lañu cay liñ ca jublu xam nañ ko à un certain moment ñu ñaaw njort ñaw njort bi mooy ñun dañoo dugaloon recours ci ni ñu composé Sénat te recours boobu ñu dugal. Euh, boo xoolee ba ci biir est-ce que ñi ñu jàmmaaroon ñi ñu jàkkaarloo loolu duñu du ñu sukkandiku ci recours boobu ngir ne euh, bon comme yéen a dugal recours ngir euh, di di di attaquer ni ñu falee ñu nekk Sénat léegi dañuy changer waat ñu nekk Sénat et pour la dafay am obligation ñu reporter élection yi mm-hmm. mais ñoom ils l'ont compris ci saa si ñu dem retirer waat lañ dugaloon recours ba et ces gens là possible voilà voilà voilà merci beaucoup Ndiaga Sylla la électorale c'est ça moom moo ko jiite woon moo ko jiite woon ñi si des dañoo mujj rocceeku ne ñun recouratuñu garaaw moo tax sax ba moom moo ci mujjoon moom moo si mujj ba euh, la cay xew xew ca waaw mais mooy jamono ji da ngaa nekk en face d'un adversaire boo xam ne yéen a ngi jëm ci combat te moom combat bi arrangé ko gis nañ fi làmb juñ tëgg dem ba ci biir mbër mi xëy porté porté blessure <laughs> dañ koy gis mm-hmm. donc làmb ji nga la waay bu fi kenn porté blessure bu fi kenn gaañu bu fi kenn yàlla yàlla sàmm candidat yépp mm-hmm. Amadou Ba nekk ci jàmm Bassirou Diomaye Faye ne ci jàmm Boubacar Camara ne ci jàmm Anta Babacar e, e, ak keneen ak keneen ak keneen bu kenn feebar bu lenn dal kenn ba si Bassirou Diomaye mi nekk ci biir prison bi. Mhm. bu ko lenn dal bu ko dara xoos na ne si jàmm yeneen candidat yi ne si jàmm ñu dem ci élection incha allah le 25 février 2024 parce que. le peuple sénégalais ci boppam moo parewul pour di dégg ay waxu report d'élection c'est-à-dire le problème mooy ñooñu fukki nit yooyu noonu di toog biir palais di waxtaan. Mhm. li ñuy waxtaanee dañ koo moomut. y compris président Macky Sall amul lu mu ci dogal ndogal gi ci askan wi la war a jóge et bu ñu demoon bu ñu demoon je dis bien bu ñu demoon ba élection ñu war koo reporter uh-huh. du doon seen décision mais décision bu askan wi di jël moo xam dañ koy jaarale ci référendum wala leneen ak leneen. pour pourquoi kon recalé accepter dem di euh, dialoguer. du waxtaan ak euh, président Macky Sall léegi léegi moo li moo tax li wax am solo mooy. askan wi nañ toog xool leen. <laughs> ba xam fan lay mujj xam ku dem ak ku demul dinañ ci dara. déjà man gëm naa ne ñu bëri ci recalé yi ci circonstance yi duñ dem foofu naan dañuy waxtaan ak président Macky Sall. Mhm. te buñ delloo ginnaaw tuuti lépp mi ngi déparé woon ci lettre boo xam ne bind nañ ko. déjà waxuma sax toog bi mais lettre ba rek moo njëkk nekk problème. Mhm. parce que tey dialogue national jaar na fi. c'est il faut que ñu bàyyi di naxante c'est-à-dire koo xamante ne nii da dem toog ak moom waxtaan ak moom mu pare defaat la lim la def nga demaat toogaat waxtaan ak moom daf leen di xoolal dafay toog négocier waat ak ñoom tey bañ kontaan jàpp ne ñoo ci nekk bu subaa mu xëyaat leen defaat leen pire. parce que Cheikh Bamba Dièye bi dem demoon na ci dialogue national bi voilà ñu leen di foowee euh. cest à Bamba Dièye bi demoon ay wér bien vrai que retenir na fa ab discours boo xam ni ñëpp ko rafet discours historique voilà léegi moom discours teewaayam boobu ban sens la am ñoom ñooy toog di dénoncer ne dañoo biaisé processus électoral bi mhm. moom Cheikh Bamba Dièye bi demoon ci dialogue bi c'est quelqu'un qu'on respecte mais dama la dañu bëgg expliquer que président Macky Sall ci doxalinam ak opposition daf ciy wane ne moom respecté wu leen et c'est ça le problème le vrai problème c'est ça léegi nag nit ki respecté wu la à chaque fois muy doxee ak yow ni muy doxee ak yow su toogee ba mu neex ko moom day xëy benn jour rek toog ndekki ba mu neex ko rek mu ne bon euh, xaaral ma convoqué gars yi ngoon du ñëw mais. <laughs> su nit su la respecté wul nga respecté sa bopp. dëgg la d'accord naa ci ñuy wax ne dañoo soxla waxtaan mais waxtaan ci yenn circonstance ndax benn waaye daal moom euh, c'est-à-dire mooy wax ji fi ma ko tàmbalee rek foofu lay dellu si waat. Mm. mooy waa ji waxtaan bëgg-bëggam moo la ciy jiital. su wootee maanaam c'est-à-dire waa ji da nga ko naan kaa ñu waxtaan kaa ñu waxtaan kaa ñu waxtaan du la faale mais bis bu demee ba moom si boobu mu yëg ne man soxla naa waxtaan bis boobu la lay ngeen waxtaan. ok actuellement askan wi comprendre gi ñu comprendre loolu moo tax dafa ne kaay leen tey 18h rek ñëpp ne eh yi def leen attention. dafa bëgg a reporter élection yi. Euh, voilà Sénégal comprendre nañu ne président Macky Sall fu mu waxtaanee rek parce que da ngay lu lu fi lu bëri jamono bu ñuy recalé ñi ñi nekk ci ci opposition bi. période boobu c'était un bon moment pour woo leen ne leen bon c'est quoi le problème ak mbirum clé yeeg mbirum fichier yeeg leneen. voilà loolu dafa ko moment boobu. te woon sax xaar ab di jëpp euh, di jub euh, euh, maanaam di jub dem ci moom. voilà waaw léegi le premier premier problème mooy. Hmm. bu fekkoon ne président kat dafa am loo xamante ne nii. dafa am loo xam ne prérogative am la mu war koo def. Mm-hmm. ñu sant ko ngir mu am lu mu saytu wala quelque chose comme ça wala moom mu war a génne décret mu doon décision bu mu war a jël soo waxtaanee jéeg président dinañ comprendre waaye processus boo xamante ne ni fi mu ne ñañ war a valider valider nañ leen. ca c'est-à-dire lui c'est un président sortant dans quelques jours président bi moom pare na ci pare na ci mbir yi. Mm-hmm. candidat la am boo xamante ne nii bu fekkoon président Macky Sall dafa waroon présenté pour beneen a am un président mais président sortant sax amatu fi parce que Amadou mooy candidat. ok c'est-à-dire dans quelques jours dëkk bi ay candidats ñoo fi nekk président dootu fi amati. dootu fi amati effectivement waaw kooku ci moment boobu nga xam ne président amul nga bëgg koo jël ay dogal. te ma li ma jaaxal mooy que euh, l'opposition bi surtout ñi nga xam ne pare nañ euh, ngir dem wala ñi bind bataaxal euh, président Macky Sall parce que mbir mi fa la dooree dinañ dem ak duñ dem l'essentiel mooy que bataaxal bi fa la mbir yëpp dooree ñi nga xam ne ñoo bind bataaxal bi jébal ko président Macky Sall ñoo ñoo fi taxawoon démb ne pouvoir exécutif bi dafa laal ci pouvoir judiciaire bi laal ci pouvoir législatif bi maanaam amul séparation des pouvoirs mm-hmm. te ñu dem constitution jël maanaam conseil constitutionnel autant moi jël li nga xam ne mooy ndogalam mm-hmm. Macky Sall à ce que exécutif bi dugal loxoom ci li nga xam ne mbir moo xam ne nekkul prérogative am. laa dafa indi benn paradoxe euh, ci li nga xam ne doon nañ ko défendre euh, ci ay weer wala ci ay at ci ginnaaw. Mhm. donc loolu pour moi li si li li si am solo. mooy déjà il faut que wax ci lettre boobu déjà ndax war na wala waru et tout le temps <laughs> Ousmane Sonko ci doxalinam parfois day def dara nga ne waaw mais kii la muy def. ni lu mu si biir. l'histoire da jox <laughs> a comprendre est-ce que Ousmane Sonko amul information yu gars yi amul wala amul lu muy xalaat lu gars yi xalaatul parce que euh, mbir mi boo xoolee ni mu demee. Mm. ñu xëy wax waxu lettre rek ci saa si mu mel ni ku dara matt daal tëb rek daal di yuuxu nen man sama yoon newu ci. dugguma waxtaanu ma bindu ma lettre si ñëw ma. Mm-hmm. sama yoon newu a fallu ñu dem ay fani fani fan romb fi ngir ñu comprendre ne lettre boobu noonu fii la nar a mujjee mooy toogi jëwaat ak président Macky Sall ngir waxtaan ak moom. Mm-hmm. et Ousmane Sonko moom ci rëkk la bokk. Ah, waaw te defe naa recalé yëpp moo si gën a métti le recalé. Mhm. ndax ko xam ne tey jii bu ñu demee bay balay askane leen ne yow yaa leaderu opposition bi ci taxawaay ci dayoo ci lépp. waaw tey jii ñu la recalé loolu je pense que c' est quelque chose qui fait mal. et surtout aussi nga nekk favori. c' est ça donc moom euh, tey jii bu amee posture boobu je pense que xeetu xeetu xeetu scénario yi xëy na moom moom la teeloon xalaat. Mm. par rapport ak loolu. te wax dëgg yàlla nag li si leer ba leer mooy. président bu fekkoon am na dogal bu mën a jël ci lii dinañ mën a comprendre au moins ñu ne ah président kat na def benn décret comme ça mu changé léegi lii mais loo xamante ne nii président bi maanaam fu mu ne ab candidat bu doon candidat sax ab candidat simple lay doon te fa rawatina doonul candidat pare na ci géew gi fi mu ne lu ñu négocier ëllëg sax Amadou Ba moo si war a gën a impliqué wu ko président Macky Sall ok implication Amadou Ba fu mu ne moom moo gën a neex a comprendre que implication président Macky Sall. parce que mooy candidat mouvance euh, par exemple waxtaan ak. Mhm. di yooyu noonu c'est-à-dire nga war a def def ko li ma war a ma def ko. mu jeex taag. ni ma a mhm. nga respecté c'est di waxtaan di trouver ay accords ak loolu moo sonal Sénégal quoi. waaw dafa am une classe politique boo xamante ne. dañoo gëm deal gëm compromission ba pour ñoom àdduna lépp deal la. léegi après ñoom bu ñu waxtaanee président Macky Sall après conseil constitutionnel dafa revenir at euh, ci décision non léegi ñoom loolu lañ bëgg. ba pare li si ëpp solo xam nga. loolu lañ bëgg. mooy président dafa mënut a pousse élection yi mënu ko. président day toog ba mu neexoon mooy dañu pour élection yi élection yi président moomu ko di. je crois que ne président Macky sax xanaa du nangu li du nangu pour la première fois euh, muy maanaam euh, ñoo xam ne ñu ko fi woon moom mu nekk euh, premier personne bi nga xam ne moom mooy def li nga xam ne rek moom mooy ab report élection je crois que ne président Macky Sall sax loolu su nekk xelal xelal xanaa. xam ngeen ñoo ko moom. Mhm. ñuy voté président Macky Sall du ko bi. xam lan li ma ci am man xëy dem voté ji. Mhm. xool ku mu bëgg a voté mu voté xool toog nag xaar ngoo résultat ndax kooku day gagné am du gagné il faut que ñuy éviter cest à di leen jox doole gu ñu amut c'est vrai que président ci ñu tënkee texte Sénégal léegi yooyu am na doole mais yenn saa itam ñu jéem ko jox doole mu amut. saa waay dañ laa dénkoon mandat. Mhm. ba mu jeexee 2019 ba mu jeexee président lu mu def. amul lu mu ci décidé dafa ñëwaat ci askan wi croiser les bras kuul yaru jaxalu. ñaanal leen neexalu ñu. nañ dama bëgg ngeen falaat ma suñ ko falaatuloon du faluwaat. nit ñi falaat ko gis na posture boobu mu nekkee woon noonu ba taxaw di ñaan nit ñi ne leen falaat ma posture boobu la nekkaat ne te fii nag li ci gën a garaaw mooy fii daa mënatul présenté wu. amul muy dogal président jamono jii su xoolee ndeyaa ne la defal lii nga def ko yow la neex c'est parce que ci période boobu buñ ci xasee ba dugg président amatul dogal bu muy jël. Mhm. léegi ci ci période boobu noonu ñoom ñu demee maanaam lan lañ bëgg léegi ndax. Euh, co euh, président de la république dafa war a toog rek ne conseil constitutionnel allo oui na ngeen def ça va bien. bon léegi euh, dugalal leen ma Cheikh Tidiane Dieye wala dugalal leen ma Cheikh Bamba Dieye ak euh, diw diw ak diw yokk leen leen si biir 27 yi quoi ñun si dëkk boobu lañ nekk. loolu mu nekk une première fois nag on peut s'attendre ndax dil la boo xamante ne le président de la république moom moo ko initié. tamat gëm naa tax ñuy wax ñuy wax opposition doo leen gis ca ca jotaay. non parce que am na ci ki ci benn Bougane Gueye Dany Aminata Touré sax na ci ndax mi